comme d'habitude chaque année vraiment comme mission bi nga xamné mom la collectivité territoriale am ci walu éducation mom moy chaque année ñu jox ay fournitures e-, scolaire école yi nga xamné ne ñoo nekk ci commune bi lolu nak mo ñi fi dajale tey euh, nak li tax nak ñi gën di ñëw di gën di xalaat parce que éducation ku ne xamné lu am solo la légui nak euh, ñun en tant que commune mënon nañu jënd ay fournitures scolaire ñëw jox ko école yi waaye pour ñu bën a euh, def li nga xam ne moom méngoog euh, réalité yi nekk ci école yi mooy dañuy permettre directeur école bi moom ak président CODEC bi mu def ay expression de besoin xool li nga xam ne moom la soxla parce que ñun mun nañu jënd jox leen loo xam ne ñoom ñu ngi ko dese wala jeexaluñ ko mais dañ leen di permettre ñu def ay expression de besoin ñoo jox ñu ko ñu sukkandiku ci pour man leen a jox loo xam ne dina méngoog lu ñu soxla loolu nag chaque année dañ koy def waaye lii indi loolu ak tax ñun tim ñu wut ay pexe pour gën a système éducatif bi mooy que dafa nekk secteur bu prioritaire mais également directeur d'école yi ak président CODEC yi nga xam ne ñoo ci ne ñun am nañ conscience ci sacrifice yu ñuy def chaque année loolu mooy waral ñu ñuy indi résultat boo xam ne sànq président CODEC bi mu ngi koy liir mu dem ba quatre je pense que loolu vraiment war nañ leen si sant gërëm leen encourager leen mais également gën a taxaw ci seen wet pour gën leen a jàppale sànq ni bi ñuy waxtaan euh, dugg nañ ci ay détails li nga xam ne ay doléance la maanaam ñu fexe ba gën leen a mën a jàppale surtout si fonctionnement beeg yëpp ñu gën a mën a taxaw élèves yi yaakaar naa ñii nga xam ne euh, ku ne xam na ne jàngale yombul waaye malgré difficulté yi ñi ngi dem di def ay sacrifice di jàngale ay samedi ak dimanche di encadrer école yi moo waral ñuy am résultat bi kon nag ñun en tant que commune nga xam ne tey suñu compétence mi ngi ci dem ci école primaire yi préscolaire yi daara yi école communautaire de base yi kon donc bu ñu gisee ay jàngalekat yoo xam ne ñu ngi taxaw di jàppale élèves yi di am ay résultats ñun tim aussi lépp lu ñu man dañ leen ko jàppale ci wàllu fonctionnement wàllu appui ak wàllu photocopieuse yooyu nga xam ne chaque année euh, bu ngeen xoolee fourniture yi cahier yi ak big yi matériel géométrie yi mais gis nañ ci aussi ay rame de papier ak papier ministre yi nga xam ne dina dimbale euh, jàngalekat bi ci li nga xam ne mooy essai yu muy def parce que dañ daan ñëw fi di photocopie mu bari lool moo taxoon sax ñu jëloon décision pour appuyer leen ci ay photocopier ku 8 millions moom lañ joxe bien que biñ fi ñëw nag fourniture yi yeggoon na ay moins de 3 millions loon donc chaque année ñuy yokk ba mu nekk 8 millions je pense que tim aussi ñu ngi xalaat naka la ñuy def ba mu gën a pour que daal élèves yi gën a am li nga xamné mom moy condition d'étude surtout parents yi aussi dépenses yu ñu jënd ay cahier yoy yëpp mu mëna wañé ko bu baaxa baax li objectif bi nak moy ñu jël en charge lépp nga xamné chaque année bu ñu joxé fourniture scolaire parents de yi dootuñ fi jënd ay cahier mais en tout cas dal dañuy remercier bu baax directeur école yi ak président codeg yi ci sen taxawaay euh, lolu mo waral sax ñi nga xamné pour gëna motiver élèves yi ñu organiser jéem a organiser ay journée journée d'excellence communale yo xamné du jëm rek kessé ci walu élèves yi mais enseignants yi nga xamné joxé nañ ay résultats yi nga xamné résultats yu am solo la ñom tim baxna ñu féliciter leen encourager leen delloo leen njukkeel ci liggéey bu rafet bobu yakarna commune bu Kër euh li nga xamné mom moy abri ak bloc administratif yoy yep yoy yep da fay bax ñu bàcci xel pour que qualité enseignement bi gën a mais également directeur yi mën nekk aussi ci condition yoo xam ne dinañ mën a jàngale ñii nag ma gis résultats. ñuy joxe résultat yi ku leen jox condition tabaxal ay salle de classe abri disparaître nga clôturer leen école yi defal leen ay bloc administratif yaakaar dinañ yegg trois cent pour cent. ak euh, vraiment satisfaction ci kilifa gi nga xam mom moom la yàlla dénk commune Kër Socé mu nekk suñ partenaire. comme ni ko ko euh, texte yi nga xam ne ñoo tënk éducation santé suñ partenaire la daf ñuy gunge ci lépp daf ñuy gunge bañ ñamee léegi daf ñuy gunge ba tey Kër Socé résultat bi toll na ci quatre-vingt-dix pour cent gunge nañu ci tabax muru clôture gunge nañu ci toilette gunge nañu ci équipement table banc gunge nañu ci bay école yi gunge nañu ci yu bëree bëri lépp lu nga xam ne ñun dañ koy laaj bureau daf ñu ko tijjil dañuy ñëw dugg sans pour autant ñu am benn protocole wala benn kii bu ñuy jaar